Señor, go! Kajoor ah dama di seen rongoñ fer na waaw waaw sunuy rongoñ fer na ndaxte nag dañ doon toppandoo di wëri ba Ndakaaru cal Jóob ngir am kër gu rafet dama la loolu jeex na fi tàkk tey ak EDM établissement Daaru Minan dama ni la sunuy rongoñ fer na ndaxte nag lépp lu jëm ci tabax waaw tabax kay da ngay samp sa keur kay ma wax la lepp luy matériel EDM e établissement Touba Darou Minane Diagne frère andil nañ la bu bax la am ci walu plomberie nak mo fi toog ay matériel de toute nouvelle génération manila électricien yi moom dañu fa sax abonné ndax li ci xéti lampe décoration dama ni duma la limal lepp lu jëm ci walu électricité EDM établissement Touba Darou Minane la ca gëna rafet la ñu andil ko askan ah EDM Touba Daaru minan frère ñi nañu ñoo bañ duñu ak lu baax ko wax de tamani la bañ sa EDM e ay pompe suppresseur d'eau PVC original la dara luy matériel construction bo fa ñu jaay la original ba ci ay prix yu abordable jarul EDM e établissement Touba Darou minan frère ñu ngi fi ci Thiès ci quartier bees gi ci marché Moussante waaw waaw ni xaar ma joxe numéro téléphone yi jël 77 539 25 81 wala 33 951 11 83 roy Dal du Agua bi ak wa EDM établissement Darou Minan ndaw dëkk bu gën rafet ci Sénégal jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ànd ak euh, programme Teranga Sénégal TV ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen émission bëre bi nga xamante ne moom la ñuy am ak yéen euh, àllarba bu jot di seeti ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci daanu Thiès wala ci biir réew mi di yëngu ci wàllu làmb moo xam muy mbër ngay promoteur ngay amateur wala ngay membre CNG wala CRG bu lutte ginnaaw bi ñu ko defee ci suñu numéro yi weesu tey nag euh, ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy euh, ci digg Thiès ci place Mamadou ja dalal fii euh, kenn ku nga xamante ni yaakaar naa ni ci wàllu làmb ci biir région de Thiès ràññee nañ ko bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy amal fële ca comité régional de gestion de la lutte de Thiès mu nekk asan Fall Assane Fall nag mbër yi xam nañu ko promoteurs yi xam nañu ko amateurs yi xam nañ ko ëhlu làmb xam nañ ko waaye sportif yi euh, xam nañ ko bu baax a baax ndax taxawaay bi mu am ci wàllu tàggat yaram fii ci diwaanu Thiès rawatina ci wàllu làmb tey moom la ñu dalal Assane fas yéene sekk ak moom waxtaan ci lu yaatu yaatu ci lu soxal wàllu làmb waaye na rawatina euh, saison bi nga xamante ne moom la ñu génn waaye fas yéene euh, laal ci saison bi nga xamante itam moom la ñu dëgmal fekki semaine yu néew rek dinañ ko ubbi sur l' ensemble du territoire national Assane dama koy bàyyi d' abord mu nuyoog téléspectateurs yi di ko dalal ci émission Bari maa ngi lay nuyu. Mbaye Papa ji ngi lay fay.

vraiment kontaan nañ ci trop ci ci ci ci dal bi nga dalal fii tey. sa mbokk yi moy moy Assane Fall ñen ñi naan ko le secrétaire permanent ñen ñi naan ko le secrétaire permanent et administratif du CNG. loolu yëpp ay euh, <laughs> casquette la yu nga xamante wala ay ndomb tank la yi nga xamante donc euh, tay dañuy wax ni euh mom c'est le poumon de de de de du Serge de voilà parce que lu upp ci liguey bi ku ne xamna ni président coordonné rek lay def waaye li ci ëpp lépp ci liggéey bi ya naa ni moom mi euh, am na ci wàll bu rëy bu mu ciy joué loolu sax dinañ ci ñëw après waaye balaa tëdd Assane tey boo ñu doon ci la vie du CRG Thiès comité régional de gestion de lutte mooy kuréel gi nga xamante ne moom moo jiite wàllu làmb ci région de Thiès ginnaaw loolu amna ay euh, bankas je ci mel CDG le comité euh, local je pense que c'est yëpp ci la waaye itam ngeen jiite ko ci région de Thiès la vie du CNG du CRG Pour autant pour moi fii ci région de Thiès environnement bi atmosphère bi mbir na naka de doxee foofu yow nga euh, ci euh, pendant des années merci beaucoup Mbaye Papa vraiment laajte nga laaj bu am solo la vie du CRG c'est c'est tout hein. parce que la vie du CRG si nous ñu les membres du CRG le président ses vice-présidents, le secrétaire administratif, le trésorier, la, euh, les commissions euh, et les autres membres, c'est des membres actifs. Donc, si nous avons la vie du CRG, il faut tourner vers le fofu, nous faut encore, comme nous l'avons dit, les CDG, les trois CDG, des présidents, de passage, du les présidents de comités locaux, du les amateurs de lutte, nous les managers, di nuyu ñi nga xam tamit euh, c'est des les lutteurs en exercice parce que sans sans les lutteurs nous n'aurons pas un CRG donc c'est vrai que ni kon ñom la ñu waroon njëkk a bi kon la vie du CRG fay tourner ci lool donc CRG nak soko gissé da fa nek ben groupe bu nga xamni c'est nommé par le gouverneur de la région bu euh, nommé le président le président ànd ak ses membres yi nga xamni ñom ñoom dañoo bëgg lamb ñu ànd ak moom ci liguey bi liguey bi nak jëmul si lenn lu lul nous avons développer la lutte au niveau de la région parce qu'au niveau du CNG le ministère des sports a nommé nommé président CNG donc si avons ci région c'est l'inspecteur régional des sports qui a def euh, son arrêté soumettre au gouverneur sous gouverneur andé, mu a di koy arrêté CRG de lutte fii nag Babacar Diop fi comme président ci at yi nga xamni mom lañ fi euh mu am ci liggéey bu am solo bu mu ci def euh liggéey bu am solo nak soko ko moy dajalé wat les acteurs de la lutte sur une même table kuko ci wo mu wuy la kuko ci wax wax bu neex mu wuy la kuko ci wax wax bu nakari mu wuy la donc ça veut dire que kon euh, à l'heure que je vous parle nii on est au 11 septembre vraiment ba octobre bu commencé ba légui euh ñu ngi tenir ay réunion yu am solo avec les membres du CNG, avec les promoteurs, avec les managers, avec même les lutteurs. Si nous avons des combats, nous les accompagner avant le jour pour ne pas que nous ayons le jour pour nous nous la vie du CRG, c'est presque nek presque mom moy parce que si le gouverneur a un cahier de charge ni la dama la sport bobu la lutte lutte la région il euh, war nga ci xar tànk tubéy ba mu jeexaat nag moom moo tax mu ni la sasuma la nga nga ni ma am naa xaalis bu bari sasuma la ni la nga nga naan ma gestion bi ni la demee li ma la sas mooy que ni maanaam fépp foo xam ni activité bi ngi fay am ñu teg ko ci yoonu administratif bu baax administratif nag soo ko déggee mooy tey ji làmb am nga gis fa la sécurité gis fa ay xale yu yu bëri ci jàmm ñibbi si jàmm xale yu am licence promoteur bi koy tëgg am licence su ko defee loolu lépp suñ ko dajalee su ngoon jotee ku nekk ñibbi waat sa kër mom moy li nga xamni mom lañu soxla ci ci ci làmb mu nekk lu am solo loolu ci côté bobu aussi légui légui dégg nañ nga waxo ni euh, le but du CRG c'est de développer la lutte au niveau de la région c'est vrai que même au plan national avec le CNG euh, actuelle équipe bi fi nekk l'équipe de Bira et Meissa ñu koy saluer au passage ñom au début bi ñu ñew le ministre Matarba a développé développer toute forme de lutte sur l'ensemble du territoire national parce que nous avons toute forme de lutte on sait qu'il y ni beaucoup dafa choses. façon il y a gréco-romaine il y a la lutte olympique il y a une lutte simple et puis lutte sans frappe et puis du côté Bob aussi mu mel un euh, message Bob. Euh, wala boog euh, sas Bob nga xamante ne la le ministre bi même au plan national mais comme au niveau régional est-ce qu'il est ce une y CRG à côté Bob euh, yéen a koy développé comme ni nga xamante ni ci ben non lañ ko waxé won manam développer toute forme de lutte au niveau de la région de Thiès. merci beaucoup vraiment content nañ encore ci question bi euh moy lima la wax sank ci Babacar Diop ni la dafa ñëw wat euh akhlu lamp parce que so xolé le premier vice-président du c'est il s'appelle monsieur Pierre Mbakhane Gomis ñu koy nuy de passage mom mo yor lutte avec frappe à chaque fois que besoin la lutte avec frappe se présente moom mooy ñëw présenté wu avec le promoteur le cahier de charge bi nga xam ne moom la ñu soxla waxtaan si ak on a ñu ko tenir une réunion bu nga xam réunion bi suñ ko avec le président de la commission d'organisation le président de la commission communication ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ak la sécurité wax ni jour làmb bi lii lañ fa soxla donc c'est le président le vice président chargé de lutte avec frappe moom dina tenir ay réunion avant jour bi nga xam jour làmb bi donc nit ñi nag te yi ñëw rek suñ ñëwee gis nit ñi ñëpp teew fekk na boobu waxtaan nañu ak le promoteur ba xam ñaata policier la war a indi waxtaan nañ ko ni ko barrières yi temps de barrière mooy doy waxtaan nañ ko ni ko manager yi am nañ seen place fii la ñu war a toog waxtaan nañ ko ni ko la presse am nañ seen place fii la war a toog loolu lépp c'est le vice président chargé de lutte avec frappe moo ko war a def soo demee tamit idem par euh, le deuxième vice président chargé donc mon tamit mon ngi koy doxal bu baax a baax ci région bi il s'appelle Antoine Sen c'est un ancien lutteur émigré moom tamit mu ngi koy doxal bu baax soo ñëwee ci comme tamit question bi nga laajte comme nous nuñ la lutte ñu man mii lañ dénk la commission lutte olympique gis nga maanaam sama casquette dafay nekk loo nga xam ni c'est dafa dafa yokkuwaat parce que la lutte olympique donc bi ñu defee ba pare man lañ ko dénkaat pourquoi ñu dénkaat ma ko mooy que ni le centre du SONEPS il y a des les pipis qui sont là-bas euh, des moyens de 12 ans des moyens de 10 ans euh, ñu ngi xalaat les JOJ de 2026. et que ñu ngi siy travailler bu baax a baax euh, actuellement nous si waa CNG comme nous avons ko au niveau de la région on travaille pour le niveau au niveau national. donc le traité technique tu as la formation quoi mais tu as la compétition gisaguñu affaire bi côté boobu parce que quoi qu'on puisse les JOJ c'est bientôt. C'est bientôt mais euh, je pense que Thiès bi ñi nga xam ne ñuy wax am nañ ci ay regroupement au niveau du de l'équipe nationale pour vous dire que nii donc Thiès euh, desul ginnaaw ci les JOJ ñoom ñu ngi ci bay seen waar bu baax parce que du ñu toog euh, semaine wala deux semaines yu nga xam la direction technique nationale laajtewul euh, ci filles yi wala ci garçon yi ni dañu soxla diw parce que dafa wara a ñëw ci ben VSD bu ñu ko def kon ça veut dire que donc la lutte olympique tamit mu ngi développer au niveau de la région parce que aussi tamit ñu am salle bu toll ni SNEPS hein ah, nek salle bu bu mag a mënu ñu ci développer la lutte olympique donc vraiment ñu ngi ci sant yàlla bu baax di si de passage ñu nuyuwaale notre japonais euh, Songotin yooyu donc de de son voilà donc euh, moom mi ngi siy béy waaram bu baax ah euh, dem nañ sax ba nga xam ne ay projets yu entre le CRG de Thiès ak l'ambassade de Japon le plus si moom la jaar et c'est pour la lutte olympique donc euh, dans bientôt. est-ce que les gens ñu intéressé euh, de manière euh, comme nous koy ah parce que tamit dañuy wax ni inconnu par le grand public ça aussi il faut le dire parce que souvent nous avons la formation mais du côté compétition c'est là où la bas blesse parce que nous ngi vu, bon bëriwul li ñu koy ça aussi il faut le dire même ci la formation mais est-ce que les yi tamit commencé à intéressé bien sûr bien sûr parce que si on ñun le centre bi actuellement on est à une cinquantaine d'élèves cinquantaine il vient tous les mercredis soir samedi et dimanche le matin su dee ci temps vacances mais su sont temps année scolaire on demande que le bulletin soit présent le bulletin de l'école bulletin boobu Non, li ñu am que toujours en contact avec l'établissement bi pour demander que ces résultats parce que nous avons fait fexe ba nga su nekké di xalé bu ndaw bëgg euh, sport bëgg lutte aussi tamit bëgg na ñu xolalé capacité d'intelligence am sur l'école nan la ci may a donc ça veut dire que actuellement ni au niveau du SNEIPS ñun dal vraiment sante yalla su fekkee ni région yépp mu ngi koy nonu euh mën nañ am chance ni les JOJ de 2026 mën nañoo am dara ci biir sur les ci ci euh benen bi euh, ni ko laajtee aussi tamit am na solo mais je pense que ni le CNG mi ngi ci bay waram parce que au niveau drapeau de chef de l'État bi mujj rek la petite catégorie est entrée dedans euh, toutes les régions dañuy la petite catégorie Nous avons une compétition qui c'est la lutte africaine donc trois filles et trois garçons donc depuis Saint-Louis dañ commencé Ambour Mbour def une réussite totale. Euh, donc le fruit est en train de se sortir parce que nous avons une médaille d'or et un médaille d'argent pour les garçons et euh, en fille ñu amoon est blessé. Nous éliminons par demi-finale donc ça veut dire que l'affaire euh, est L'affaire c'est important aussi tamit euh, après la Ligue olympique récemment aussi tamit gis nañ pour une première. dans l'histoire du Sénégal qui est abrité ce qu'on appelle le beach wrestling bu ko waxee nag moom ci plage ci je pense que <laughs> plage Malika bi la plage Saly bi la plage, déplacé andi ko fii ñu à quelques mètres fii ñu euh, à la promenade des soit mu nekkoon une très belle initiative bo xamante ni gis nañ fa njëriñ li ci nekk et puis beach wrestling bi et puis naka ngeen def ba taxawal lu ni mel et puis bu bi en véritablement dan la woon. voilà xam nga mom lañuy wax rek euh, sank toujours ça vient du du première question. moy bi nga xamni la vie du CRG. parce que déjà pour que commencer liggéey il faut que nga tenir des réunions euh, président Babacar Diop sur le tenir des réunions waxtan ak les présidents des CDG ni leen la biir biir ci bi dama bëgg yéen ñëpp ku nekk génn ci sa xalaat ci biir loolu si le président Thierno Ndiaye ñu ngi koy de passage di féliciter ci liggéey bu rafet bi mu defoon fii ci euh, promenade des donc c'était au niveau départemental quoi mais quand même il y avait des voilà. CRG mais mais mais c'est le comité départemental. voilà très bien ñoo waa Mbour ñëw nañu. donc c'était sur l'invitation du président du CDG euh, mu nekk une réussite totale donc le beach wrestling c'est suñ koy wax toujours de wax bëri ci booru mais actuellement le beach wrestling dafa nekk lu nga xam ni c' est lutte olympique tolloon moom au niveau international actuellement les européens euh, muy tout les 5 continents sax lay mën di wax ñu ngi commencé di def beach wrestling Mais mais Sénégal de si si ginnaaw parce que bi mu xamee ni rek euh, les du beach wrestling fa la fa la tendance bi vers l'international aussi aussitôt rek dafa dafa intégrer les les lutteurs en exercice moy lutte la la lutte simple. on a des ressources pour voilà donc c'est le ci lañu ba Tunisie bi passé Sénégal moo moko donc pour vous dire que ni euh, xalat nañ ko c'est pourquoi tamit la beach wrestling ñu commencé ko diko diko diko jangal xalé yi diko jangal les arbitres. Euh, Thiès actuellement ni pour encore féliciter le président du CRA qui mom tamit jàll na un arbitre international en lutte en beach wrestling de même que Siga aussi tamit euh, moom tamit la même chose pour vous dire que nii Thiès daal euh, macha allah mbay euh, liguey bi nga xamni ni ñu ngi bëgg ci ci ci développer la lutte à chaque fois que cahier de charge bi génn dinañ ci def lu nga xamni euh yaakaar nañ ni suñ ko présenter population bi wala kilifa yi dañuy wax ni vraiment fi ngeen tek sen tànk foofu maa ngi togn légui man ni beach wrestling bi dañ ko déplacer andi ko à la promenade des Thiessois ku ne xam ni commune Thiès ville de Thiès. amul plage amul dara mais tey comme CRG c' est au niveau régional tey on s' attendait euh, première édition bi ngeen yóbbu ko à foofu moo doon gën a yomb wala sax pourquoi pas à Kayar <laughs> ngeen ko yóbbu foofu man maa ko waxee noonu mais gis ngeen andi ko est ce que tey euh, seen yeneen euh, échéance yi par rapport ak beach wrestling bi dañuy xaar ngeen andiwaat ko Thiès. wala da ngeen koy organiser à Mbour pour permettre aussi tamit euh, côté bobu ñom ñu gëna comprendre véritablement enjeu yi wax nga ko légui nga xam sur la scène internationale ñu koy commencer diko développer foofu manam euh, mën nañ ko xaar Mbour wala gis ngeen ni parce que tamit euh, l'étape de Thiès amoon une réussite totale ci wàllu boobu même bu fekkee ni <laughs> voilà promenade dañ ko andi ci côté boobu. voilà c'est ça mais li nga wax non la parce que xam nga dañ ko joxone les CDG pour que ñom ñu commencer des tournois au niveau des écuries et on a fi gis que ni gis nañ ni au niveau de Thiès. Euh, tournoi bi ñu def ko par catégorie amoon na solo trop ñu demandé aussi tamit tiawan mu def la même chose ñu demandé tamit Mbour mu def la même chose et am ah, Mbour def na mom tamit bu melni fi bu mu defone fii promenade. donc tiawan sur la bannière du Serge toujours donc euh, Tivaouane mom mo defagul won parce que tiawan dafa manquer won écurie mais donc euh, ñu leen féliciter encore comme déjà am na seen récépissé benn bu génn bo xamni légui léegi écurie Tivaouane mbooloo taxaw na euh, loolu satisfaction la bo xamni jotna euh suñu démé ba nga xamni légui dañ fay nek ak ñi nga xamone ne amoon nañu fa récépissé mais te togon bañ a wu ñoñu dañuy ñew réaffilié wu comme so déggee amna na benn euh, écurie bu ñuy wax rofo mi ngi nek Mboro mom suñu waxee ne Tivaouane amul écurie dañ ma naan li ma leen écurie parce que kër bu ñuy wax euh, Rofo mi ngi mi ngi mi ngi Mboro amna pays amna kayit donc si ci dajee ak bi ni donc y a deux écuries deux écuries pour faire une compétition donc ñom ñu ngi demander le président du CDG que mu def compétition mom tamit su ko au niveau régional ci lañuy def des finales donc ci finale yoy nak euh, ñu ngi xalat euh, pourquoi pas yobuko ci fu melni ni Mboro pourquoi pas yóbbu ko fu melni Kayar wala bour Saly fenen ak feneen parce que nous avons des côtes bu nga xam ni c' est très large. donc seen war nga ko mën andi Thiès comme la dernière fois bien sûr parce que mën na nek mën na nekk. aussi aussi ça demande des moyens parce que technique bi rek. voilà charge bi foofu lay gëna a parce que technique bi lañ ci soxla ak la visibilité de de la population. Euh, moo taxoon ñuy bëgg diko def parce que lima la wax sànq au niveau du bus dal euh dafa nekk léegi loo xam ne mode la bo xamni xeyna xëy wax bari ci booru géej mom mo jaaxal nit ñi

Euh, kii nu ma ko mën a waxee ci notion ci ci ci li nga xamante ne moom mooy euh, les et les aboutissants règlement bi. voilà donc venu ñu paree euh, vraiment ci bi ñu doon defee promenade de Thiessois def nañ évaluation gis nañ ni règlement bi xale yi maîtriser guñ ko bu baax et si biir loolu CDG demandé woon na le CRG pour que ñu xool nu ñuy def ba accompagner les écuries dem si ñoom dafa en théorie et en pratique pour xamal leen règlement wu li biir souplesse li lu mu laaj ñom nga xam suñu même suñu dee def bëri dóor suñu dee def li simple suñu dee def lutte olympique bi ñu boolewaale si de cinq minutes avant ñuy pare la lutte biir souplesse donc de ce fait que actuellement ni le président de la commission de la CRA muy aboubakr Dramé ak la direction administrative euh, ak la commission d'organisation organisation ñu ngi xalaat euh, des perspectives pour l'année bi di ñew ñëw suñu fi yalla baye ak jamm ñu ngi def pour dem vers les tours des écuries pour waxtaan ak ñom ci.

c'est jeexagul soo tegee say deux hommes. ça amu nekk rek discussion keroog gis nañ ko ci kii mënul ñàkk parce que yëpp la ñuy delluwaat ci ñàkk maîtriser règlement bi rek. Ah, donc euh, actuellement ni daal am nañ ci yaakaar ni donc euh, si saison bii di ñëw euh, le président du CRG joxe woon na ci ndigal pour que ñu dem envers les écuries pour gën a waxtaan ak ñoom sur la lutte sur wrestling le wax leen règlement bi nan lay demee ba nga xam ne dañ ko xam à temps que ba ñuy ñëw au niveau régional et ñu dem tamit au niveau national nous ñu maîtriser comme l'équipe nationale maîtriser. c'est important alors euh, beneen euh, bi ñuy ñëw rek euh, sunu beneen point bi mooy lu soxal wàllu lutte avec frappe ak la lutte simple dans la région de Thiès ci saison bi ñu est-ce que def le bilan de la saison ci wàllu gala yi fi am au total ci région de Thiès Vous ñu ko comparé ak saison yi ñu est-ce que jàpp ngeen ni affaire bi gëna na euh, développé ou bien japp ngeen ni dafa gëna wañéku ci côté bobu l'ensemble des galas que ça soit muy la lutte euh, traditionnelle ou moy euh, li nga xamante mom moy mooy dor ci région de Thiès. voilà merci beaucoup Fofu, dina la ci am luma la ci tontu touti rek mais damay bayyi tamit le privilège au président du CRG bi xam actuellement ne tey fi ñuy émission bi mu ngi au niveau du CNG ngir def l'assemblée générale bi nga xamni mom avec toutes les régions su fa il fera son bilan pour l'année 2023 2024 mais la ci jox moy bu baax l'année 2023 2024 vraiment mom mo gën 2022 2023 ça je peux vous le dire dans la région de Thiès ci côté promoteur parce qu'ils ont venu massivement sur la lutte simple ils ont beaucoup de cartes de promoteurs dans la région. Ils ont une carte promoteur. Au niveau de la lutte avec Frap, bi nga une ni tamit euh, Thiès gis nañ fi ay promoteurs yu bees ñëw tamit bay seen waar ci doon benn organisation def nañ ko fi y compris si di jaxate bi nga xam euh, mi à chaque fois di doxal régulier..! très régulier très bien mais les autres aussi tamit vraiment jambar lañ. parce que au moins ceux.. nañ ñu su dee gàtt lu je peux vous dire 80 euh, lutteurs yu nga xamné ne dañoo naroon a toog te suma né 80 donc da ngay jël vingt lutteurs euh, euh, par par qui donc 10 combats ça fait 20 donc y' a y' a quatre promoteurs à cinq yu nga xamni ñew ñëw nañu ku si nekk teug nga ben orga ben ben gala. ñom c'est est des promoteurs issus de Thiès issus de la région de Thiès. est ce que yeneen régions yi aussi ñi ngi doon sentir seen i promoteurs ñuy jógee fofu di ñew ailleurs amna quelques ay ay 2 ans ci ginaaw ñu ko doon gis ay ben ben mais. waaw ah, mais ça dit comme euh, ken ren jii kenn la gis ni ñew na dans la région c'est est Diaye Bawol Production mais dans le département de de Mbour fa la fa la tëggee woon de stade Caroline Faye donc moom dong la ñu ni au niveau national moom jugee na arène nationale. ñëw dans la région de Thiès nous fu mel. ñëw na de tamit voilà c'est là deux ans. 2022 2023 si je me trompe pas le combat Pape Mbaye r contre Boy effectivement c'est en 2022 2023 donc pour vous dire que donc dans l'année bi année bi ñu génn ni c'est une année très, très satisfaisante au niveau du CRG et au niveau des, des, des, des, lutteurs. Parce que ce que nous avons tout, c'est que les gains que nous avons en 2022-2023, euh, vraiment, une augmentation. Hum, voilà c'est important donc ce que nous avons par rapport à la saison de ñu euh, par exemple au niveau de la région de Thiès c'est vrai que promoteurs yi une nañ relation avec ak promoteurs

mbëri mën ci gis seen bopp ñoom aussi ñu mën ci gis seen bopp seen diggante ak promoteur yi ci wàllu boobu fii au niveau de la région de Thiès. non ñu ngi sa alhamdulilah on touche du bois vraiment ñun coow loolu dañ koy dégg rek mais nekkagul si au niveau de Thiès parce que comme ni ma la ko waxee rek euh, déjà Thiès waa dafa nekk lu nga xam dafa nekk suñu deret muy benn euh, bala ñuy tëgg làmb tamit suñu promoteur bi ñëwee ni dafa day tëgg carte promoteur day ñëw defar contrat de concession dañ ko wax man lañ fay fekk ma waxtaan ak ñoom ba pare suñu paree tamit ba mu ñëw jàpp jouram dinañ tenir une réunion ba nga xam ne comme li ma la waxoon ci début émission bi wax leen la dinañ tenir réunion boo xam ne moom ak promoteur bi ak la commission d'organisation ak la commission sécurité la commission communication dinañ toog ak moom tamit son son groupe dinañ toog sur une table waxtaan si ba nga xam ne suñ demee dimanche dañuy mel ni mbuur ak soow waaw ah, léegi dama lay doog foofu naa la nga ni nga xam ne promoteur bi jàppee bisam au niveau de Dakar tu vas au niveau du CNG dañ lay jàppal date lu ci ëpp bokk noonu lay demee dañ koy waxtaane mais à Thiès est arrive souvent promoteur ñëw proposé benn date ngeen ko date bi baaxul parce que tamit li ma bëgg a wax mooy euh, Thiès mën na tëgg le dimanche 25 ci même dimanche 25 Mbour tëgg benn CRG moo fi am CRG day obligé boobaa bon

effectivement mu ni way damay ñew mu ni ko est-ce que pare nga pour jël ay date yoo nga xamni ni soo lay date yooyu da ngay fay caution yi mu ni effectivement pare na donc su ñëwee on lui donne le calendrier de la saison bi nga xamni mo nek en cours mom mu ñëw choisir ces dates là donc kenen ku ñëw en deuxième position mom tamit su ñëwee su né dama bëgg tey ram le 31. c'est-à-dire loolu yéen CRG yéenay woo le promoteur en personne ki nga xamné ni japp ngeen ni donc mom mo gëna régler ci ki bi moom ngeen a jox privilège bok comme par exemple à Thiès Sidi Diakhaté ngeen di woo léegi nag bon doog a dem ci ñeneen ñi wo ok su ñëwee date boobu noonu su xasee ba jàpp ko caution la donc caution bi su jotee on dit que ni maanaam tey jii ni exemple le 10 le 10 c'est un dimanche jàpp na ko donc dem na ba ci ba ci yàgg ni non non le 10 baaxul il perd sa caution da koy perte parce que le fait que caution bi mom motax mom ñu joxoon ko contrat de concession bi mu yóbbu ko au niveau de la euh, sous-préfecture ou de la préfecture pour mën am l'autorisation mais ak ni ngeen yagge ak mom souvent cas de force majeure mën na jox joxe xaalisam pare ah, leneen am bien sûr non non cas de force majeure du c'est CRG mom moko CNG moko teunk euh tey jii ni ñu ngi euh, nuyu euh, di jaale tamit suñu lutteur bi dëkkoon Ngoundiane ma faté tur bi mom tamit lolu moko dal nako Sidi jàpp na combat moom ak euh, Boy Guet Ndar euh, ba ñu ni semaine bii la boy bi décédé cas c' un cas de force majeure dañ ko mujj ni ko ah cas de force majeure la donc moom mu jàppaat datam Sidi war na fee sécurité amul. dàgg ñu koy jaale bu baax moom aussi boo ko waxee suñu xel dee dem ci loolu donc ñu koy jaale ay mbokkama ah. bu baax baax di ñaanal ak euh, waaye daw li nga xam dañu bokkoon ci làmb ñoom galas bu bébé liiru ñoom Ahmed Saliñ Saliñ ñoom ñëpp ah Amar Dikko yàlla na suuf ci kawam continuel donc pour vous dire que le euh, cas de force majeure que bokk ci même dans le contrat il parle dans l'article il y a cas de force majeure les cas de force majeure sont liés, ils sont koy ben par ben. ni est le cas de force majeure Si vous pas le cas de force majeure donc ça il faut laisser au bureau du CRG euh, moi gérer les contentieux nga xam ni pas ci cas de force majeure donc c'est à lui d'apprécier est-ce que war na pas euh, cas de force majeure la su ko defee tamit année bi ñëwaat ñu soumettre au CNG comme ni Babacar nekk tey ci assemblée nationale soumettre nous ne tel tel euh, chose à na à Thiès mais nous sommes dans le corps de force majeure bi su ko fait, on intègre ça ni le ko ci biir euh, cas de force majeure mais pour vous dire que au niveau du CRG de Thiès euh, amuñu problème avec ak les promoteurs Les gens qui le jour J le jour de l'événement par exemple euh, CNG le CRG de Thiès par exemple je peux donner l'exemple de Mamadou donc à un moment donné moom moo la commission d'organisation, organisation léegi su mi ci commission communication bi ci wàllu boobu par exemple le chargé de l'organisation du CRG moom bu ñëwee dafay am lourd tâche bu koy xaar le jour ji aussi tamit structure bi nga xamante ne moom moo taxawal événement bi dañuy am seen responsable d'organisation. organisation tey une ñaar li ñu war def collaborer mais est ce que souvent du leen arrivé ñoom ñu bëgg benn mbir yen ngeen jàpp ne loolu lu yàq làmb la wala yéen tam ngeen imposer leen loo xamante ne ñoom du leen arrangé mu xaw am parce que tamit côté boobu on a comme l'impression dafay jaxasoo ñi naan euh, ci CNG bi moom moo doxalee nii promoteur bi moo ko bëggee nii affaire bi waroon na taxawee fii war woon defee nii ci côté boobu dañ koy gis euh, lu bari euh, ci événement yi ci côté boobu yéen dina leen faral di dal wala fii à Thiès amu leen problème boobu. non cest man xam naa ne côté boobu moom vraiment ñàkkul ni dina am mais su amee rek. Euh, dañoo faillir à notre mission faillir à notre mission moi que ni toujours wax naa la ni la dañuy def réunion avant réunion de préparation ce qu'on a fait, je pense que nous avons un problème le jour li nga li mën a am que par exemple nga bàyyi ba dimanche nga ñëw promoteur bi di organiser fële yow tamit CRG ngay organiser mais su vous ni tey ni dimanche mercredi soir nous avons nga une réunion pour demander ko ni ko yow tant d'éléments ak sa budget la sécurité bi ñaata moo am la sécurité wax ni la 50 personnes nga ne porte ban lañuy ñuy pour lutteur l'enceinte nan lañ koy defee ñen ñoo foor a dugg ak ñen ñoo ñoo foor a dugg la commission médicale fa lay toogee la commission d'organisation fa lañ ko soxlaawé ci côté bobu donc mbër yi tamit ci seen touche fa la seen cubukaay fa la je pense que ñu du am problème mais nak comme Sénégal lañ nekk parfois di nga gis lo xamni nak dal da lay bett te lu la bett mën la te su boobaa xeyna ki ñu yebal mom mo koy wara a doxalee xamni mom moy gëna rafet mais su boobaa su nekké fofu di teesante santuñu ko mais li war ci mom moy que ni mu woné ce bu nga war a def ci jamono bi nga xamné ni jamono bi laaj dal promoteur bi promoteur bi la police de l'enceinte parce qu'on dit que l'enceinte c'est géré par le CNG c'est géré par le CRG là-bas fofu promoteur bi amna fa part de responsabilité mais day l'ordre aux arbitres Si bëggoon dugg tay ci lancer enceinte bi day demander arbitre bi ah, de abidou bi ni yàpp amul problème mu woo mu ñew waxtaan ak mom mané a mais par exemple moo tax ñu ne la police de l' est gérée par le CRG donc parfois li ci bëri nak ci côté enceinte bi la. Ah, enceinte bi non mais mais mais bi moom foofu noonu fitu waykat yi nek fofu yeen say promoteur mom moy ñew ñëw laaj ndax police mën na dégager nit ñi ak yooyu la presse ñun la parce que la presse avant ñu té ñu wax ni len ban place mo baax ci yéen ba ngeen mëna a gis seen combat yu bax visionné ko bu baaxa baax su ko defee yooyu yëpp ngeen ñu mën koo comprendre noonu mu mën a dem mais quant à di di di xaar nag euh, ba le jour J nga ñëw ni non damay dem directement ci digg géew bi on vous dira que ni fii de sa place. souvent tam dañuy gis tamit ci événement yi CRG wala CNG dañuy def ce qu'on appelle dépassement de fonction ou demande sax dépassement de fonction mais euh, yenn saa yi dañuy jël décision xam ne dañuy jàpp ni c'est trop abusé mbër yi dañ koy jooy amateurs yi dañ koy jooy euh, parce que tamit gis nañ fi récemment à Dakar benn promoteur taxawal événement am. Euh, c'est vrai que même bu fekkee ni dañoo dañoo dañu tangalat ci bi defoon na benn sortie ne sama jour làmb buñu ñu arrêté làmb ji telle heure lu fi am nangam sangam ma ngi xaw wax genre menace que ni mom ak CNG le courant ne passait pas amoon nañ genre variété ci côté bobu c'est-à-dire foofu laay waxee est-ce que tamit souvent du ñu jàpp ni tamit CNG wala CRG dañuy dañuy dañuy dañuy jéggi les frontières def lo xamante tamit ñom waruñu ag fofu ci côté bobu mais mais mais monsieur Mbaye maa ngi lay gërëm bu baax mais gis nga côté bobu non euh, je pense que ni gis nga promoteur. Euh, l'aspect culturel de Mais nous, on gère le sport. On gère la culture aussi. Parce que l'âme de une culture, de un sport. Mais ce fait qu'il a, par exemple, au lieu de, 10 combats, vous avez 10 combats, 20, lutteurs, qui commencent à 16h30. Un dépassement, par exemple, espacé de, de, 5 minutes à 10 minutes à 15 minutes. ce qu'on on, on, 22h. C'est pourquoi, voilà, avec le promoteur, le CNG, il a comme je l'ai waxtaan ko ni ko maanaam kat léegi nangatuñu làmb di àgg 21 heures te c'est très normal les amateurs ñoo ko demandé parce que amateur bi moom dafa war a am privilège tamit boo xam ne dañ ko koo may parce que moom mooy dagg mu ñëw heure bi jot mu war a dem ñibbi këram à heure normale dem pour 22 heures ça c'est je pense que mais mais très bien le lutteur aussi il est protégé hein. parce que au début sans le lutteur. donc amateur il est protégé. parce que soo le lutteur est heure 15 heures. mais il est ba 22 heures. lutteur la arrangé da fay porter préjudice yenn yenn yenn lutteurs yi wala bok day don lo xamante du favorable ci ñom puisque est ce que dama bëggoon xam parce que japp nañu tamit contrat mo mo teunk le manager le promoteur ak le CNG ci biir contrat bi dañ koy xaatim noir sur blanc ça nous arrive souvent ñu gis ni le lutteur est convoqué à 15h30 pour wax ni fin du gala manam 19h war na war na sëgg mais dañuy gis ni souvent mbër bi na pare avant boobu lamb ji day dem ba 22h dans ce cas légui légui moom mbeur mi lan ci war lan ci war responsable CNG lan ci responsable promoteur mais on a comme l'impression que dañ koy ñu ko ci ci même bu féké ni ci ko mais lu ci ëpp la ci la parce que xam nga si bi su par exemple ñu ni ñu ni 19h30 euh, lañ def derrière dernier combat 19h30 teguñu ko ci wax rek 19h30 dañ la euh, techniquement comment on fait la en lutte avec frappe si nous à 15h30, le premier combat, donc mon excès, il a le temps de 15 minutes pour me dem xol tan moy don ci mikayam 15 minutes je mom waru xol ndax public ñew na waru le. 15 minutes yoy warna dem xol ndax touche kat bi ñew na mu wax ban la bëgg touche à 17h pile nous commençons les combats espacé de 2 minutes à 19h30 dañuy bëré mais da ngay gis léegi grand combat nga gis grand lutteur bi su ñëwé au lieu que momu tous day xaar 19h30 day xaar 19h45 léegi nak diggante bobu muy xaar mais xaalisam moy dem c'est pourquoi tamit CNG bi mu xoolee ni manam pécuniairement mu ngi koy dagg mais amul. amul xaar bi cee mbëri est ce que xam ngeen lan moy lan moy cause bi li tax ñom ñuy ñuy préférer di xaar. mais neex leen rek. neex leen. Hein? parce que quand le stade est vide kooku mënul ñëw faire chorégraphie. non non je pense que ni nak euh, xam nga kon kon nak ah, mais comme lamb lamb spectacle la. stade stade actuellement ni suñu convoqué à 15 mais je pense que duñu xar euh, que public bi ñëw. ah voilà donc il faut que tamit euh, ñun tamit au niveau de la lutte tamit ñu réglementer suñu bop donc suñu len convoqué à stade maa ngi jégalu ñu dugg ci football tout récemment dem nga match au Sénégal Burkina ban heure la nit ñi commencé ñëw le matin 10h. Le match est à 18h. 18h sur sous 18h sur le commissaire Guéné donc ah mais mais mais je pense dafa dafa xaw a quoi sport là, mais sport la mais sport bi dafa am leneen lu ci rax xam nga football amul culture mais qui dafa am culture dafa am yeneen yoo xamante ne ñenn ñi sax jàpp nañu c'est beaucoup mille fois plus important que l'aspect sportif bi ñuy gis muy l'aspect culturel gis nga loolu moo tax ñu war ko def loolu woo tax ñu war ko def bëccëg parce que bëccëg boobu ñu koy def noonu si la nit ki di am courage mën a parce que su ma la nee 15 heures mais lutteur bi mën naa ñëw 15 heures mais bala muy tuus 16 heures jot na 16 heures jot na 15 heures 30 ñaata minutes moo des 20 minutes 20 minutes yooyu noonu on le temps de respecter dina leen 15 minutes da koy bàyyi moom ñu bàyyi ko ko mu temps mu xool fu muy dem 5 minutes mu doog a ñëw taxaw pour demander donc 16 heures jot na donc fekkee da am na supporter bu ko mën a jàppale pour mën a teel ñëw moom li nga koy teel a dimbali moom tamit mu teel a dem pare def muy def dem ñibbi parce que moom tamit muy muy muy important pour dimbali mbër yi CNG est ce que y yéen a une def euh, d'une part aussi tamit euh, à chaque début de saison ngeen convoqué les managers parce que comme on dit CNG xamul mbër CNG manager la xam ngeen Et les concernés les managers di rappellent, rappeler di leen sensibiliser di waxtaan ak ñoom pour tamit nous, ñuy dimbali seen parce que souvent on a comme l'impression que managers yu euh, li euh, ñuy du n'importe quoi voilà li leen intéressé c'est un pourcentage bi ñu am ci ci cachet mbër bi ci ci reliquat mbër bi wala ci cachet bi nu ma ko mën a waxee mais euh, du ñu protéger l'intérêt de la lutteur bi nga xamante ne tey moom le concerné j'ai comme l'impression impression que dañuy dañuy bàyyi trop de laisser-aller yoo xamante ne day dal ci mbër mi après ñoom ñu taxaw na la responsable mbër bi daal engagé est ce que yéen tamit ci côté boobu yéen a ngi woo manager pour dimbali mbër yi jaarale ko par le biais des managers. waaw euh, duñ ci jóg hein. par exemple comme ni ma la waxee nii la vie du CRG bi ni ma la ko waxee woon euh, à chaque fois que CRG bi am lu mu war a waxtaan ak manager yi dina woo le président parce que ñoo am nañu un président muy euh, Aziz Ba woote ni leen euh, dañoo soxla woon tey manager pour waxtaan ak ñoom suñ ñëwee ñoom tamit suñu bindee lettre waxtu yi ñun lu ñu bëgg a waxtaanee dañ ci toog waxtaan si ñun tamit ñu leen di xelal ñoom ñamit ñu ñuy xelal ci mbër yi lan lañ bëgg donc ça veut dire que ni affaire boobu mu ngi am mais su fekkee ni par exemple ni tey ji tamit euh, mbay man dama Mbay doy ci sama ci sama bopp jël licence am jox

on s'entend bien ñun man bok parce que suma né nee man euh, CRG lay wax moy que ni les lutteurs m'appellent pour me dire que amna jafé jafé bi ak sama manager ma dox ci tanku jàmm manager bi tamit ma amna jafé bi ak sama mbeur ma dox ci jàmm manager tamit les les les amateurs wax ni ñom li lañu bëgg man tamit ma waxtaan seen promoteur kon ça veut dire que ni donc euh, lepp mu ngi téggu ci yoon wu rafet mu ngi dox ni mo war doxé vraiment alhamdulilah daal. c'est important légui benen bi top moy que ni euh, souvent on a comme l'impression que mais ça dañ koy wax CNG euh, du ñu avertir parce que tamit euh, wax nga manager mais souvent da ngay ñëw ba ci jour J bi tu vois des choses yëpp da ngay li ne lii lii moo ci fekk mbër mi mais yow en tant que membre du CNG yéen en tant que euh, euh, comité régional de gestion est ce que tamit du baax tamit souvent ngeen dem envers les concernés di leen andiwaat moo gën ngeen di physiquement euh, maanaam brusquement di jël yat bi di dóor parce que tamit euh, quoi qu'on puisse dire phénomène la boo xamante ne euh, amateurs yi sax léegi ñu ngi koy rafetlu wuñ ko ñenn ñi mbëri waxaale wuñ ko seen xaalis bi ñuy dagg au niveau du CNG du CRG dafa bëri même bu fekkee ni à Dakar lañ ëpp lu ñuy nemmee ko phénomène boobu ci côté boobu est-ce que parfois tamit bon ngeen dem envers ñoom gis ni lii bu ñu ko defee lii mooy dal seen kaw ngeen wax ak ñoom parce que tamit souvent am na ñoo xam ne teef la mais am na ñoo xam ne ñàkk xam la c'est-à-dire ci côté boobu laay waxee bon sant yàlla toujours man li nga may laaj nii c'est des questions yu ma neex parce que dafa ci am lo xamni c'est c'est la personne euh, moy tax mu meuna euh man see tontu tontu tontu bi nga xam moy tontu de vérité euh, ñun sant nañ yalla parce que promoteur yi ren demuñu ci euh salle de spectacle wala dara dafa defee seen signature de contrat lépp c'est passé au niveau du CRG même avec Sidi Diakhaté avec Baye Samba avec Thié Production avec les autres ñoom ñëpp seeni lutteurs dañuy ñëw présenter les 20 lutteurs ma gis leen ku ci nekk ma woo ben benn par benn wax la ni la lii lañ lay xaar jour ba bul def li lii soo ko defee lii la ciy fekk bul xool sa morom muy def lenn li nga def tey jini nii euh, bi euh, li ko yàq mooy ni diw mu ngi def dama koy def est ce que diw def baax wala bahun, donc su baaxul bu ko def su nekkee lu baax la nag mën nga ko cee mën nga ko cee euh, awu mais su nekkee lu bon la bàyyi donc man loolu côté boobu man sant nañ ci yàlla ba nga xam amul ben lutteur bo xam 2023 2024 bi bëri nañu te gissantuma yow indirectement wax ak yow ni la euh, ñun de jour heure heure sangam lañ la convoqué su fekké ni sama manager joxu la ko woo ma téléphone dinaa la joxal kayit bi dina la wax ni léegi lañ la xaar su fekké ni nombre de personnes yi nga wara am accompagner li mom mo nek dem nombre de personnes yi nga xamni mom lañ lay xala mom lañ lay xaré su fekké ni ci biir géew bi la tant de minutes yi nga am donc loolu euh, soo ko respecté Mbaye vraiment da mais nak sant nañu yalla ah, parce que manager bi yone suñu fayeku dañuy gis ni sur 20 lutteurs hmm, mën naa ni euh, les les les 17 ken daku leen. parce que ñoom ñep tegu tamit mais tamit wax nga ko léegi galay ren dafa dafa dafa gën a bëri bi ko comparer ak yeneen ce qui veut dire que jàpp nañ ni galay lu mu gëna a bëri dagg bi gëna gën bëri ça moom mënul ñàkk quoi mais tay euh, dañu am journal comme l'impression wala bok dañuy faral di dégg ñu ni euh, CRG wala CNG xaalis bi ñu dagg mbëri fan lay dugg parce que tamit quoi qu'on puisse dire loolu dinaa ak après les journées du CRG war nañ ko xaar gis nañ ko fi daawaat jekk ak le CRG du Thiès ak le combat Morsar euh, Thiatou Samba Diaw mu nekkoon journée bu am solo yooyu on a envie de voir ces yu mel noonu mais dañuy wax ni xaalis bi ñuy dagg mbëri fan lay dugg parce que tamit dañuy wax ni sax ba ci assurance bi nga xam ne mbëri dañ koy dagg bu ñu feebaree dañ leen di bàyyi en rade dañ leen di bàyyi kenn leen duñ am xam nga xam nga l' assurance feebar moom moom mënuma ci mënuma ci wax mais pour vous dire que ni si galaay yi nga xam ni man

rapport médical arbitre euh, commission médicale bi dañuy bind tel mbeur yobou woon ko hôpital telle heure on attend que le matin son manager indi dossier yooyu non su ko indee dañuy xol su fekkee ni c'est c'est lu yalla tere yàlla bu am amul ko ñu chance mel noonu mu nek lo xamni ni ëpp la suñu bop dañuy kon baba le dossier dañ ko yóbbu CNG. CNG jël transmettre ko assureur bi mais su dé par exemple ni ay gaañu quoi événement mais euh, par exemple avant avant avant avant l'événement par exemple à la veille de son combat ou bien à 72 heures avant le combat mu contact et ça légui ok légui ci côté assurance mais xass ni dag mbeuri budul ci et puis euh, donc au niveau du CRG man suis la ci dara euh, ci que l'administration.

काय मला आलं काय काय वेळ नाही काय एव काय काय काय मला आलं Aca Assane vas-y dama sant yàlla euh, li ngay laajte noonu man naa leen ne day dina bokk ci li nga xam ne tey jii taxawal nii tuuti def assemblée générale hmm. assemblée générale bii di ñëw di nga ci gis euh, xaalis boobu nga xam ne dagg nañ ko mbër yi ak xaalis bi ñu jëlee si promoteur yi fan la delluwaat waaw di ko ci gis su fekkee ni euh, on invité dañu dañ leen invité ngeen ñëw ngeen mën cee génne seen grain de sel incha allah te day ama parce que du nekk loo xam ni ah, dañu wax ni Wow, la waaw vraiment waaw waaw loolu bu soobee yàlla c'était buy di ñëw nii dinañ fexe ba ba jàllale communication bi ci Mamadou Seck mu invité leen yéen ñëpp soo leen paree di ngeen gis ñu jox leen rapport boo xam ne moom ngeen lii te rapport boobu moo nekk ci gouverneur moo nekk ci yéen su ko defaa di ngeen xam kenn ngeen ko dugal booy na nga def yaa ngi ci jàmm ban daara nga nekk daara daara fan la tey jàng ngeen da ngeen a lu ngeen def. tey suba ngeen jàng léegi ban heure ngeen di dugg léegi timis jot lu ngeen def ci mbedd mi heure bi ah. ah tey du ngeen jàng quoi ok yow sori nga sori nga yow sori nga foo ah? kii foofu la yam yow naat fan nga yam ah, kon yow ah bon yamul foofu voilà d'accord tey ci làmb ngeen ñu fekk ñuy waxtaane yow am nga mbër. am nga mbër kan mooy sa mbër. Ama Baldé. Ama Baldé taxawal noonu yow nag am nga mbër. kan mooy sa mbër. yow kaay am nga mbër yow ya? kan mooy sa mbër. Balla Gaye 2 bett ma bu waxoon Balla Ama Baldé Modou Lo yow la moo nga faral Balla Gaye dara da nga ko waxoon nekk faral ko ni yow loo gis ci Ama Baldé lu tax Boy Niang ah yow lu tax nga jàpp Ama Baldé dóor ko dóor yi metti yow nga teg ko fan acca <laughs> kontaan ci yéen acca daw leen gaaw ngeen xool tali bi bu baax a baax na ah seen jakartaay ngeen moytu jakartaay acca kontaan naa ci yéen loolu ngeen bëggoon feeñ ngeen tale ok merci beaucoup sama gars yi <laughs> Assane alors mu nekkoon euh, voilà ñi ay ay alalu yàlla lañ quoi donc euh, il faut ñu leen di ñu leen di ñu leen di euh, ba xaw nu ko may expliquer voilà di leen won ñoom ñoom ñoom ñoom ñi ngi ci gis nga euh, waaw xale ay xale lañ quoi ay xale lañ ay moomin lañ donc ñu doole leen jàppale ah doole leen jàppale bu baax baax surtout yéen nekk ci kër yi ngeen leen bu baax a baax a baax ñoom booy seet xaaj bi yëpp ñu ëpp ci ñoom dëkkuñu fi ñu dugg fu sori ñëw fii ngir jàng si alxuraan bu leen xam ne ne ci wàllu daara wax nañ ci lu bëree bëri mais nag bon ñu xool leen ñoom ay xale lañ quoi ba ñu xool li nga xamante ni donc moom la moom la ñenn ñi di wax l'un dans l'autre rek bon Uh, ay jarbaat lañ ay sët lañ ay doom lañu ay rak lañu alors Assane yaa ngi woon ci uh, point bu am solo assemblée générale bi ngir andi beaucoup plus de transparence ci li nga xamante ñu koy dennee euh, ci reliquat wu mbër yi donc loolu aussi tamit voilà dina ci am solo waaye daal li gën sans plaidoyer bu ñu mënee am une saison sans dagg mbër <laughs> loolu mooy li l'idéal quelque part xam naa dina am na benn membre CNG bu naan mbay de quoi il parle mais en tout cas tamit loolu la loolu il gagne bien sa vie am na yeneen affaire yu ñu def yi mais sa njaay am qualité la ñoom aussi mbëri ñu ci ëpp lii mooy seen gagne-pain même fekkee ni seen passion la

su fekkee ni si côté boobu ak lépp li ma la waxoon rek au début rek moom lañ koy remercier parce que moom moom mooy teg moo ma fi teg ba pare ni ma del doxalee nii su fekkee ni am naa lu ma ci defaat su ma ko demandé moom mu may ma ko moom la ñu war a remercier parce que man noonu laa fa nekk mu ni ma non sant ma la lii bul def lii te su boobaa je suis obligé l'obligation de faire li mu bëgg mooy voilà ba mu mun accepter loolu cest ni dire loolu mooy am li solo <laughs> en tout cas l'un dans l'autre euh, c'est le cher GTS et je pense que CRG dafa am euh, le spécial peut-être yeneen euh, y a une région. amuñu ko mais que c'est la famille muy les promoteurs euh, les lutteurs les managers ak les membres du CRG te Assane Fall mi ngi toog nii mënoon naa woo Mamadou Seck mënoon naa woo le président Babacar Diop mais jàpp naa ne bu Babacar Diop toogee Assane toog man li may mën a wax ak Assane sax du ma wax ak Babacar je pense que <laughs> loolu téléspectateurs yi sax mais mais ben la maanaam koo ci woo rek mel ni morom bi mi ngi fa je pense que c'est ce qui fait la charme fi ci wàllu ci ci diwaanu Thiès au niveau de la lutte et que c'est à saluer c'est à magnifier loolu mooy li am solo beneen bi top moy que ni euh, actuellement ni Thiès fini taxaw tembe saison bientôt léegi mu tijji euh, mbër yi léegi ñu commencé waat dug hivernal écurie yi ñu reprendre mais dafa am lo xamanteni actuellement mom le nit ñi di euh, wax que ni loolu njaakare la problème infrastructure à Thiès champ de course tëj nañu ko les travaux d'ailleurs ailleurs commencé na Maniang Soumaré xam nañ dafa nekk stade la jor sëgam nawetaan mu ñu si jot tey au niveau de la ville de Thiès

dem perception fay sen khalis c'est vrai nak c'est normal waxuma ni c'est pas normal c'est très normal et dama len koy encourager pour ñu koy def parce que lolu développement ci la ci la lépp mën a jaaree tey suñ suñ ko doon def ñepp di ko def je pense que ni kon stade yi heure bi war nañu nekk ci ay défarat mais dañuy wax ni lan lañ fa lañ ñu yokkaat stade fa lañ ñuy stade euh deug la mairie yi ñu ngi koy défarat euh, champ de course euh mu nekk problème bo xamni problème bu metti la. fii ma lay wax nii actuellement ni amaguñu place bu buñ ko war a defee mais ñu ngi ci woo ñëpp su ma nee ñu ngi ci woo ñëpp ñu ngi ci woo le lutteurs woo ci les managers les amateurs ak le CRG bi nga xam ni man ñoom laa fi représenté tey les promoteurs ñu ñëw toog waxtaan ndax lépp loo gis si waxtaan rek lañ ko mën a rek la bu ñu waxtaan ce qui veut dire que yéen am ngeen dans dans dans la dans votre tête loo xam jàpp ngeen ni war na mën a sauver saison bi tey loolu lan la asan parce que champ de course moom déjà seeg parewul mënuñu fa bëri mais ba tey nag encore je précise man dégguma benn yoon que ça soit muy la maire Ousmane Diagne wala ku bokk ci moom muy muy jiite ku wax ni champ de course bu paree kenn du fa bëri man dégguma ko ba keroog ñu koy dégg nit nag booy wax da ngay wax sa akulaay taala ba léegi dégguñu seen gémmiñ ñu ni champ de course bu ñu pelouse bi bu paré kenn du fa bëri ba keroog ñu koy dégg Assane damal non loolu tamit boy wax da ngay da ngay da ngay da ngay wax li am. je pense que loolu aussi xam nga nit ñi mom nit ñi mom dañuy dañ lay jiitu sa sa li nga bëgg def. maa kay nuy de passage monsieur le maire euh di di ko xamni tamit vraiment day jappalé làmb. ku bëgg làmb ku bëgg làmb pambay Mbaye suy génn damay gis da koy jappalé bu baax. Euh, damay gis tamit ni muy sonné ci sport donc soo ko nuyoo euh, soo ko fi tuddee war naa koo nuyu di nuyuwaale tous les maires. pense que ñoom amuñu problème ak lamb quoi parce que pour une première dégg nañ fi le maire Babacar Diop mu ne d'ailleurs désormais dafay subventionner les écuries puis aussi dañ ciy remercier am na ci taxawaay bu rafet non ah. Pape Mbaye Pape Amary Mbaye am na ci taxawaay bu rafet moom aussi ci côté boobu voilà euh, man gis naa ni ñoom ñu ngi ciy dox maa ngi koy dégg ay écho yi rafet li ma leen di ñaan daal mooy que ni nañu nekk benn benn buum benn say ñu toog waxtaane ko fu muy mujjee mooy que ñu ñëw ci autorité bi waxtaan ak moom

si terrain avec leur godasses, leurs crampons, nous décidons plus de trois arbitres chaque jour donc ce que vous typiquement techniquement kon que le gazon euh, cahier de charge la cahier de charge la direction de ça. mais l'événement ne se ah, passe pas seulement di ci nekkul ci rectangle vert lay déroulé. parce que gis dindi chaise yi ñëw sànni fële. c'est-à-dire yu mel wax gars dindi bundi sànni fële maanaam du du bi kese mais stade bi. Euh, dans sa donc stade bi yëpp ci loolu la wax quoi. c'est-à-dire am na yoo xam tamit bu ko wala fi waxee ku ñuy jiiñ euh, kii ngay soccoo yaxu liir bon c'est-à-dire loolu aussi tamit. non non non man côté boobu man man man côté boobu uh-huh. man wóolu naa ñun euh, yow presque nga nekk. plus du bois xam nga côté boobu man sant naa ci yàlla li ci des mooy. xam nga dem ba 23h 22h. voilà très bien te ñëpp ñu kon man côté bi may waxee <laughs> mooy côté côté côté côté côté côté lutteurs uh-huh. parce que gazon bi la ñuy yaakaar ni kiñ ci bëree mu yàqu. mais dama leen wax ni la y' a 22 joueurs plus les trois arbitres yu nga xam ni dañuy jouer ci ci ci ci terrain bi te du yàqu actuellement nii soo demoon fu mel ni Demba Diop avant muy nekk en réflexion. dañ fa daan tëgg mais tey jii nii dañ ko amaloon cahier de charge cahier de charge bi dañuy ñëw ñu ni par exemple kat bi yow amoo droit yek ci kaw fël seen synthétique bi parce que fer bi nga yor su day bënd de kay bënd loolu je suis d'accord tey ni nii kat bi amoo droit de fi touche mi buñ ko défé fi fi lañ koy défé bër bi nga xamni moy mooy war a bëre moom mooy nekk au rond parce que dañuy jël souf teg ko fa. est-ce que tu penses que le CNG ou le CRG amna poids wu canaliser ñoo ñep pour que affaire yi baña a déborder si toutefois tay ñu jox len stade bi. parce que loolu tamit ça demande ça demande beaucoup de vigilance ça demande beaucoup d' effort yoo xamante ne nii voilà war na mën a nekk nag mais Saliou Caroline Faye au début avant Cheikh Issa Sall di ñëw noonu la meloon mais Cheikh Issa Sall bi mu ñëwee dafa ne donc dama koy joxe mais ñu ngi fay dëgg làmb actuellement ni mais avec un cahier de charge ñun tamit suñu ñëwee dañuy béy suñu waar très bien voilà donc kon vous dire que ni pour vous dire que euh, mbir mi yomb na parce que euh, bi mooy tëgg làmb yi bari fii li ma la wax sànq rek nga waxaat ko mooy Thiès benn bopp la tey koo fa ni tey ji ni lii day yàq moom moo koy njëkk a defar moo koy njëkk a defar ba mu xolal ba keneen fekk ko ci ànd ak moom ki nga naan ko yow yaa ko war a yàq moom moo naan la man sa waay maa ko tuddee jëla sa mbokk kon loolu koy sant yàlla la c'est important sant yàlla la donc c'est important ah, téléspectateurs yi donc toujours seen émission bëre bi moom la woon fii ci place Mamadou Dia ñu amoon euh, le secrétaire permanent et administratif du CRG de Thiès CRG nag boko le tibir euh, bànqaas le ci bir euh, CNG mom moy comité national de gestion de la lutte mais nga xamantene le président Bira Sène moom moo alors à euh, Fall mom lañ ci amone tay nga xamantene wax nako sank mom moy poumon bi ci bir CRG donc je pense que agsi nañ ci cappaandaw gi waye amna question mon xam sañu ma tepp mom moy mooy sama dernière question ci mom parce que gis nañ ni depuis le président Messa Ndiaye mon mi fi Meissa Dem ñëw xajal le président Habibou Diallo moom itam ma koy nuyu au passage moom mu nekk fa tey ba le président Babacar Diop daal fay nekk moom mu quatre fa tey naka nga ñu mën a expliquer loolu Assane voilà donc <laughs> dañuy wax ni c'est un élément voilà incontournable <laughs> voilà au niveau du CRG de Thiès wala ci côté bobu tey lan nga ñu mëna wax ku ñëw rek renouveler confiance bi ak <laughs> li nga xamantene mom moy euh, gouverneur l'inspection régionale des sports aussi tamit confiance bi ñam ci yow sante sante rek

c'est les autorités ñoo ma wóolu ci côté boobu ma len ci gërëm bu baax euh dila wax ni aussi tamit mbay yow maa ngi lay gërëm bu baax parce que du tey euh, du ma la yow du tey yàgg na euh, donc tay ji su ma woyé ci invitation bu melni dama ci sawar a ñëw parce que li sama xol dafa sedd parce que gis na fi ay questions yu bari yo xamni ni nga koy poser c'est gentiment mais question yu neex la tamit yo xamni tay ji né au niveau des amateurs dang koy dégg wala akhlu lamb dang koy dégg donc soo ko posé fii nii dafay nekk tamit loo on a l'obligation ñu tontu ci. oui et puis euh, comme on dit en wolof li duuf ci nak bi xajul ci bi et que dina am deuxième partie bo xamante dañ koy defat spécialement ak Hassan euh, Fall euh, puisque li ñu war a waxtaane làmb dafa yaatu. je pense que xajul ci ben émission et lolu motax tax nag démé ba ci karam dañ lañ la woowaat que ça soit mu ñëw à la télé.

Euh, bala may terminer damay caale waa Mbour. fan yi euh, parce que Mbour dafa bokk ci làmb dans la région de Thiès mais dafa bokk ci làmb Sénégal donc suñu déggee ni tey jii nii hmm, y a 37 morts euh, ñàkkul ni lañ gisagul kon waruñoo mën def émission nii ba pare duñ leen caale suñu mbokk yooyu donc ñu ngi leen koy caal bu baax a baax di leen wax ni ñoo bokk naqar bi ndax ku ci nekk rek teral li nga ci bëggoon comme li xale yi mbëri di wax dama bëgg a teral sama yaay donc xëy na loolu moo seen objectif waaye nañu delloo si soit suñuy xel xam ni bindul doomu aadama ngir muy muy muy sànq boppam waxuma nag ni sànq bop sànq sa bopp la mais ci yenn yi comme ni xew ni metti na trop nañ ci xalaataat en tout cas ngi si le président Maysa Ndiaye mi nga xam ni moo fa nekk ak le maire Cheikh Issa Sall tout le comité les membres du CRG les membres du CDG de Mbour les acteurs lamb l'équipe. ils nekk fait leen ndax di nga ci am ils mu ci bokk wala di nga am xarit bu ci bokk wala di nga gis xam ci bokk obligation aussi comme nous le parfois que nous euh, au nom du président du CRG et au nom de nga xam ne ñooy axlu làmb nous di leen mass bi ñu ak ñi dem

voilà et puis tamit euh, ñi fi dess ñu andiwaat sen xel bu baaxa baaxa baaxa baax parce que fofu la mbiri tollu voilà aduna la ik lepp après ci ay natal lay mujjee parents aussi tamit pression sociale ñi tek sen domi de grâce ya xeyti baye len ko voilà yalla mo fi nek tracé na kenn ku ne fi nga wara jaar ak li nga wara am donc pour man yenn pression yi ngeen ni jël diko tek sen domi ba ñuy traumatiser wu wala di di di nek ci yenn pression yi ba lu ñu leen jaral ñuy dem di sank sen bop

ñu koy kontaane bu baax a baax ci disponibilité bi voilà ak ci ouverture bi muy euh, nit ku baax ah. bi ñu ko xamee ba léegi yàgg na waaye euh, boobaak léegi gis ngeen ko euh, wax naa ko ñetti président fekk nañ ko fi waaye ba tey ku ñëw rek ne ko yow mënoo ko dem parce que Thiès daf la soxla sport daf la soxla lamb daf la soxla yaakaar naa ne itam moom tamit ci modestem mu comprendre li nga xamante ni donc moom la Thiès waay di xaar ci moom ba tax na mu nekk au niveau du CRG koo ci wax daan la Assane bokkul ci ñi nga xam ne ne mbëri dañ leen a jëppi man moom je sais de quoi je parle et puis je sous contrôle de beaucoup de managers yi nga xamante ne ñoom ñooy liaison entre Assane Fall ak mbër yi encore une fois ñu lay ñaanal suñu borom euh, yan bi gën a oyof et que euh, li nga xamante ne moom nga dëgmal suñu borom defal la ci le kaw sa njort Moussa la ñu àndaloon ci technique bi ak Maxime ci son bi voilà tey ñoom la ñu àndaloon fii ci place Mamadou Dia voilà tey moom moo doon ping pong affaire <laughs> yi Maxime moo yoroon benn caméra bi ah caméra bu gudd gudd la fi andi tey caméra bi dama ngi koy doo gis voilà xaw ma nag bis boo juumee ba yàq image yi ma temps yi dégg naa dàqoon nañ la télé bi gars yi ba Moussa génne wàlla ñi bii paa boo yàqee suñuy image wala gars yi dàqee bu ci kenn intervenir di jël leen yàq nga Maxime te loolu tegoo ko fenn ñu koy nuyu au passage ñoom Sobel Aram Racine Diop équipe technique bi yëpp léegi voilà yow moom. voilà bu la ci dara jëlee ah waaw moo gaa sûr leen jox dig daje beneen semaine ci beneen numéro émission bëre bi ak beneen invité wala yeneen invité ci wàllu làmb jaa ngeen jëf Moussa Sall ak Tidiane mbégteeg ca cant ak ngërëm ñeel na la ba beneen yoon ak jàmm jaa ngeen jëf. yéen mbokki Thiès mbokki Kajoor ah dama ni seen rongoñ fer na waaw waaw sunuy rongoñ fer na ndaxte nag dañ doon toppandoo di wëri ba Ndakaaru cal Diop ngir am kër gu rafet dama ni la loolu jeex na fi tàkk tey ak EDM établissement Darou Minane dama ni la sunuy rongoñ fer na ndaxte nag lépp lu jëm ci tabax waaw tabax ah kay da ngay samp sa kër kay ma wax la lépp luy matériel quincaillerie EDM établissement Touba Darou Minane Diagne et frère andil nañ la bu baax la ñu am ci wàllu plomberie nag moo fi ay matériel de toute nouvelle génération Manila électricien yi moom dañu fa sax abonné ndax li ci xéti lampe décoration dama ni duma la limal lépp lu jëm ci walum électricité EDM établissement Touba Darou Minane la ci gëna rafet la ñu andil ko askan ah kay wa EDM Touba Darou Minane jañé frère ñi né nañu ñoo bañ duñu ak lu bax. Ma la ko wax de tamani la daal bañ sa bop wessul romb EDM ay pompe suppresseur d'eau ay PVC original Tamale ne la ñuy bàyyi wuñu dara lépp luy matériel construction boo fa demee ñu jaay la original ba ci ay prix abordable Sen tu asamaan daal jarul buxante. Wa EDM établissement Touba Darou Minan Diagne E frère ñu ngi fi ci Thiès ci quartier Touba Thiès gi ci marché moussanté waaw waaw xamna ni ñepp a ngi xaar ma joxe numéro téléphone yi jël 77 539 25 81 wala 33 9 251 11 83 roy daal du nuroog bi ak waa EDM établissement Darou Minane ndaw dëkk bu gën a rafet ci Sénégal nihayatin wa xidmati taqabbala